suñu borom defee ma nekk ci liggéeyu financement jigéen yi yàlla di def ba indi ci samay loxo li ñuy wooye promise muy programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal monsieur le maire bis biñ ma nommee promise samay xol dafa tooy ndax daf maa jële fu sore honorable nee na mbay sama yaay wax ko sànq maa ngi lay nuyu di la ziar nee na bi ñu waxee day dugg ci gouvernement bi ak bi ci dugg bi ñu ma joxee promise lépp lu ma naqari woon daf maa mujj neex ndax man wóorumaa dugg président gouvernement honorable dama doon ñaan si borom jox ma capacité jox ma possibilité ma mën a dimbale bi ma yor. man naa ci def lépp lu ma bëgg a def ci dimbal doomu aadama moo ma gënal poste ministériel moo ma gënal beneen ndombo tànk may santaat nag bi mu ñëwee ba egg ci samay loxo may santaat bi sama xel dajee ni naa ñëw ba Touba ma lancé ko fa damay wax ni monsieur le maire réussir nañ déjà même bu nu financé wu woo sax day daal di ndax ñii toog nii fu leen woo dina ñu wuyu ndax xam nañu kenn woowu leen ci caaxaan président Macky Sall nag. dafa ñëw wóolu ma teg ci sama loxo loo xamante ni dimbale askan bee ko tax a jóg muy microfinance islamique programme bi trois ans tëgg nañ ko trois ans yoo xamante ni jàmbaar ya nekk ca programme ba ña ngay saytu di xool ban yoon moo gën a rafet ndax ñu teg ko ñetti at yoo xamante ni ñoo ngi wër di defar di càmbar di di di di euh, renforcer mais également di jàngale monsieur le maire man bi président nommé dafa maa jox lettre de mission def ni ma dama laa nommé pour nga dérouler programme dama laa nommé pour nga opérationnaliser programme dama la fee teg ndax damaa am yaakaar ni bu ma la joxee programme milliards yi dana egg ci askan bi président amul temps ndax dafa yàkkamti askan bi gis seen bopp ci programme bi bi ma woowee mu wax ma ko ma sawar ci ndax daf maa fekkoon te yoon wax ma ne ko jox nga ma lu ma bëgg jox nga ma lu may tee nelaw mooy naka laay fexe ba góor jigéen mag ak ndaw ma jéem leen a baaxee ci lu ma as tuut li ma am wala li ma yoon bañ man tee gis seen bopp programme bi looloo ko tax a jóg mu nekk bo benn programme boo xamante ni waa ministère de la microfinance ñoo ko yor mu ànd ak waa banque islamique de développement mi bit ñu mobiliser 47 milliards ni lañ koo bëgg a jox askan bi ngir ñu mën cee gis seen bopp joxeel ba nag du ab maye joxeel ba du don mais joxe la ci anam bu yomb ba nga xamante ni ñoom dañ ci gis seen bopp mën cee liggéey mën koo delloo kon c'est un crédit boo xamante ni dañ leen koy jox ak taux d'intérêt zéro pour cent maanaam bu ñu nee finance islamique li ko tax a jóg ñaar la xeex riba ak fàttali riba la wala dafa xaraam dafa war a jóg ci wàllum askan bi dafa war a jóg ci dundu askan bi looloo tax finance islamique am bu ñu ñëwee nag ci dëkk bu tedd bii di nga fi wax kon fii lañ ko war a mën a waxee ndax sëñ bi lii lay bëgg naka la ñuy def ba alal di ñuy jëfandikoo mu nekk alal ju lew mu nekk alal ju sell askan bi gis seen bopp ñëpp gis seen bopp ngeen liggéey ngeen delloo loolu moo waral programme bi tege bi ñu ñëwee fii ci Touba dañ fee indaale benn convention ndax programme bi du xaalis bi ñu joxee directement jëmale ko ci askan bi dafay jaar ci mutuelle yi doog yegg ci askan bi programme bi mu tànn ci pour Touba jàmbaar boo xamante ni ba ma koy xam leen mat juróomi ma nekk di liggéey ci ministère des finances yore lépp loo xamante ni mooy mutuelle yi ma xamee ko foofa yàlla def ma ràññee ko bi ñu tëggee programme bi ni ñooy dem Touba sunu xel dajul lu dul ci moom ndax taxawaayam ndax njàmbaateem ndax bëgg développement ndax bëgg ay financement soxna astu li ma xam lépp mën ma koo wax ah, li ma xam yëpp mën ma koo wax soxna astu waaye koo xamante ni guddi bëccëg muy taw muy nelaw lépp ñëw na sama kër ni ma damaa bëgg nga wan ma yoon wu ma ko ne jàppalee askan bi kon soxna astu bu ñëwee Touba ànd ak yow danoo war a ànd ak yow Mbacke dañuy ànd ak moom liggéey ngir jëm ci askan bi ñu signé ñoom tey convention boo xamante ni mooy bëral ni fas yéene nañu ànd ak moom liggéey jëmale ci askan bi sànq le responsable des jeunes dafa jël parole kooku dafa war a jël parole ndax programme bi jigéen ñi rek taxu koo jóg jigéen la ak góor jeune ak mag ñëpp war am wàll ci programme bi donc jeunes yi ma leen di lancer un appel seen wàll mu ngi fii da ngeen fa am part te boo leen ñëwee di nga xam ne da ngeen fa am part monsieur le maire wax na ma léegi benn forum boo leen di wàcc bis boo leen tolloo programme bi dana ñëw taxaw ak yéen ànd ak yéen wan leen di yéen ñëpp yéen a ci bokk amul xàjj amul seet ñëpp ci bokk loolu président Macky Sall santaane te noonu lañ koy doxalee soxna su Mbacké ñu war a si ak moom tey benn convention jëmale ko ci programme maanaam ku bëgg am crédit da ngay defar sa dossier nga dem ci soxna Assou Mbacke tijji fa compte mu lijjanti la teg la ci yoon ñu financé la financement bi xaalis bi disponible na mais pour ñu génn ko dafa laaj ay conditions conditions yooyu soxna Assou Mbacke moo leen ci mën a jàppale faaw ngeen dem foofu mu teg leen ci yoon ñu génne conditions yi pour ma leen financé maa ngi nuyu soxna Ndeye Ndiaye Abo ñu ngi may signalé ni moo ngi fi xam naa ko bu yàgg. ndax soxna maam Mariam war na ma ko bu yàgg yàgg sant naa gërëm ko di si di nuyu képp koo xamante ne rek déplacé wu nga ñëw pour fekkee jataay bi donc soxna Astou Mbacké Gueye dañuy signé ak yow tey programme bi foofu la gën a neex ndax dañuy signé officiellement convention bi nga xamante ni moo koy jox otorisation saa bu ñëwee gis projet dossier bu ñu war a financé muy góor jigéen ñu financé leen ci anam yu rafet maa ngi sant ñi nga xamante tudd nañ leen fi sànq ñëpp bëri ma leen lim waaye soxna Wali Mata ngi fi ànd ak ñeneen ñu teew ci jataay bi Wali Mata Seck nuyu naa ko ziar ko soxna Combi Cissé jox naa la nuyoo ba nga yeggaleel ma ko beral nuyoo sama yaay Soro Diagne moo ko gisul it maa ngi koy nuyu maa ngi koy ziar jàmbaaru président Macky Sall Diop damaa bëgg nag ngeen gën a may ñu xel ci li ñuy wax ndax lii monsieur le maire di ñu sànq dafa am solo dañoo jublu di ànd ak yéen liggéey structurer leen organiser leen financer leen pour def ko nag dafa am benn loo xamante ni soo maa ko doon waxtaan sànq ak monsieur le maire dinañ ko liggéey ci kanam la ndax monsieur le maire dena ma jigéenu waa Touba ay jàmbaar lañ ma ne ko ah kay xam naa ne ay jàmbaar lañ ndax seq naa ak ñoom ay frigo am may ñëw te amul dara ci réew kon yéen fu toll nii dañ leen a sas sas bi mooy muy man muy monsieur le muy kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp xam na ni ñi ngeen yéen te dañoo war a ànd ak yéen liggéey waaye pour liggéey bi yomb dafa am taxawaay boo leen war a taxawee jigéen ñi dañoo war a organiser wu en groupement groupement yi ngeen identifié ñan ñoo leen représenté ci groupement yi ngeen def ubbi compte ci Astou Mbacké Gueye mais ngeen wax ko ci ban anam ngeen bëgg a liggéeyee boo leen bëggee céréales locales ñu indi leen machine bi boo leen bëggee huileries yi ñu leen machine yi boo leen bëggee savonnerie ñun leen machine yi boo leen bëggee boulangerie pâtisserie leen machine yi bu dee da ngeen bëgg élevage leen machine yi maanaam lépp bu leen leen bëgg ci machine boo leen war a jëm jumtukaay boo leen war a liggéey boo leen ko identifié jox ko soxna si Mbacke Gueye ci diir bu gàtt ci diir bu gàtt di ngeen liggéey dañ leen encadré te pour joxe preuve machine yaa ngi ne taxaw dañ ko indaale pour wan leen ko machine u café nga ne taxaw machine u tege tege yaa ngi fi noonu dañoo bañ a jël xaalis di ko jox nit ñi soxla yi bëri nañ xaalis bi balaa buy yegg ca jumtuwaay wa lu bay dana rot ca gannaaw moo tax ñu réfléchir ñu ni pour finance islamique bi dox dëgg nañ ko teg ci matériel nit ki boo ko joxee matériel jox ko la muy démarrer encadré ko gunge ko bu yàggee rek mu gis boppam te bu si gisee boppam léegi mu mën a rembourser parce que crédit dëgg-dëgg li tax mu naax mooy dañuy jox nit ñi lu mu wala bu leen ko joxee fekk yitte am na problème am na te jigéen yi la faaw la laal famille ba laal la bu ma la joxee 100000 wala ma jox la 1 million wala 500 millions sax faaw rek nga ci njaboot bi faaw nga lijjanti borom kër gi doog a man a dem def defi investissement ba loolu la ñuy bañ ñu ne nañ bàyyi war nañ ci yoon woo xam ne di nga ci jëlee loo xam ne di nga mën a yóbbu sa njaboot ga di nga mën a teral goro yi mais du tee di nga mën a fay bor bi looloo waral financement bi mu ko ci matériel kon ku bëgg liggéey organiser wu leen ñaar ñett ba juróom boo leen ñëwee def seen projet dem ci asu Mbàkke Gueye nañ leen ubbi projet bi te lu gaaw lu gàtt nañ leen équiper seen unité ngeen commencé liggéey looloo waral financement bi jóg looloo waral tey yi looloo waral monsieur le maire sonn dajale ay njabootam démb bërki démb yëpp ñu sëgg ci di wax ngir bëgg ngeen ñëw ngeen am ci preuve monsieur le maire preuve ñuy joxe tey mooy frigidaire yeeg seen boro a ngi toog en frigidaire ñu càmbar leen génn leen amul parti démocratique sénégalais amul APR amul couleur amul farfar boobu jigéen buy liggéey jigéen buy musóor rek am nga wàll ci li ñore ñëpp dañ ko yaatalal bàyyiwuñu kenn xàjjiwuñu kenn seetuñu kenn yu mel dama dëkk te di fa liggéey yore sama alal bopp boole ko ci benn alal dëkk bi xàmmeewu ma PDS xàmmeewu ma fa APR góor jigéen laa jot kon du ma ñëw ba fii ci dëkku Xaadim Rasul bi war fee def lu baax di ràññee parti wala di ràññee couleur xalaatuma ko ku dëkk ci dëkk bi yeewoo ci dëkk bi. milliards pour bëgg ñu jëmale ko ci askan bi ñooñu xaalis ba nu yor dinañ ci bay suñu wàll ba xaalis ba la tey gën a bay gën a ñëw ci dëkk bii dëkk Xaadimu Rasuul ndax boobaa ci lay sabu man te boobaa ci lay sikki sant naa leen gërëm naa leen